ah kan bi yoon waa eh eh yow maa jam yow alaaj yow ku ñàkk fayri nga alaaj jul si jàkk ji alaaj birig ah yow bul neexee ñëw tey bul neexee doo ñëw loolu nga tekk fan lan laa def nii léegi du maa yow ñoo jullandoo ci jàkk ji nga gis ma léegi ma jullee jàkk ji boo jullee jàkk ji du yaa ma gis léegi maa yow génnandoo ci jàkk léegi léegi moom kay ñëw nga pees yow bu neexee tey nga ñëw tey boo ñëwee tey balaa ñu nekk si yàlla xam waaw léegi nag yow nga bëgg ci lan jàkk yaa ko moom wala yow déglu ma delloo sa xel si yàlla alaaji dëgg du yoon waaye lu ah. ma la wax del ñëw jurus jàkk ji nga boo nee boo faatoo fii si jàkk yi nan lay julli fa ne lay sangee ah. ma la uf ma la yow faatu yow de faatu yow faatu yow de uf ma la yow dama lay dëgg laa la uf uf ah. yow faatu yow yow li ñu wax tey nii keroog fii moom lañ doon julli. yow ñuy rawale benn làkk benn ràkk ñu ñëw yow nga ñëw toog ñu sëlmal nga sëlmal. waaw waaw fekkuma imaam su jóot ma fekk mu su jóot kay si géegul su jóot kay ràkk bi bokk naa ci. ah ràkk bi bokk nga si. waaw déggal déggal. oh, oh ràkk ñi ngi koy amee si rukkoon laa la wax. yow léegi yow damaa bëgg xam lii sa problème lan la yow. sama problème lu tax nga may di ma forcer nii di ma affronter nii ci digg mbir lan la loo bëgg. dama ne la amul lan la dama ne la. yow yàq nga deru ancien leader yëpp eh dimbali ma may ma jàmm laa wax. ni ngay doxalee as litre du may doxalee as litre bu doxalee ni may doxalee lan laay doxalee takk naay gàllaaj. am naa doom yu lu may waxtaane du bëre nga ne ma as litre du bëre des boole jaamu yàlla. ah jaax nga ko ah. yow yow yow mooy loolu yow daal en tout cas mu la xamal mooy yow dégg naa benn fi fi toll nga am te sa est-ce que yaa daan. yow de licence su ma amee benn ñaar yow lu ci miti miti yow doo ma daan yow. <laughs> doo ma daan yow. lan la. yow li nga wax bu dee toll na la noonu nañu ko maye man ak yow ñu xool benn laam ak ñaar laam yow dooma daan yow licenciel yow dooma daan lu mën a xew yow licenciel dooma daan la daan waaw nan ko maye ay eh, eh, eh, plan plan bi jël ay ca sotti ma gàllaaj xaar may ma jàng ana xaar may ma jàng bu ma santoon ko xaar may ma jàng mooy jël ana. Eh, xaaral ma xaaral ma laa bëgg nga sëgg ko. butéel bi xanaa du sooy butéelu nga bàyyi gay butéelu bàyyi gay bi. te moom la sax de. pour la kii dana nëbb boppam nag. xam na nu ñuy def. kii mani dana nëbb boppam kii mbër la woon. noonu la ko de xam léegi lu ñuy def. waaw CNG ñëpp la fi nekk ñëpp xam lu ñuy def da ngay jug di dem dugg a dugg kii duñ ko bàyyi ni day yomb. Come on.